champion, we take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. spectateurs de la scène Zoom TV dalate la jàmm ci seen émission scène Sport mu nekk émission boo xam day traité de toute l'actualité sportive fii ci diwaanu Njaareem tey nag ñu ngi ci stadium Ely Manel Fall lu ko waral mooy waa anbal lañ seet si muy anbaleur yi nga xamante le 6 inchallah allah dañoo war ci seen final championnat fële ca Dakar ak waa ASFA mu nekk benn équipe première division vraiment valoir ñu ay satisfaction yu bëri tey ñu ànd ak ñoom ci li nga xam ne mooy seen entrainement ak ñuy waajalee li nga xam ne mooy final championnat bi ñu war a joué ji Dakar samedi incha allah mbokk yi noonu la ñuy def dem dalal ki nga xamante ne mooy président bi njëkk a seq ak moom waxtaan. mbokk yi comme ni ma leen ko waxee ñu ngi seen septième numéro seen Sport. tey nak ñu ñëw fi ci terrain handball bi eh, gis ngeen ko équipe handball première division bu Djourbel ñi ngi entraîné fi toll ni ci sen stadium Ely Fall président bi lañ togal ni muy wo ci turu Souleymane Dieng prési nuyu nañ ko. Eh, eh, maa leen di fay ma ngi tudd Souleymane Dieng maay président équipe bi bi préparé final contre Aswa final contre ASFA euh, président samedi là inshallah allah hein, yal na ñu ñaan yàlla mu ci ci si euh, euh Olympique de Djourbel nek ben équipe première division ci wàllub euh, handball à part Sonacos yaakaar naa Olympique de Djourbel rek mo fi équipe première division ci Diwanu Njaaréem. wa lolu mom yalla def nako ñun depuis en fait depuis 8 ans la ñu créé équipe bi yor fi wacc mais bi nu wacc wàcc kayam ça fait quatre ans dañu mujj dañu waxone ne bu ñu yëgatee jeex na dañuy xeex ba dañuy xam ni malgré euh, moyens yi manqué duñu teen xeex comme suñuy morom yi donc depuis quatre ans benn yoon wàccatuñ ko ba ñu yéeg ba tey ñoo ngi xëccoo premier ñoo ngi xëccoo premier rang yi waaw. macha allah ngeen war a jouer seen final euh, championnat contre ASFA samedi incha allah euh, ñu ciy ñaan ndam bu baax a baax parce que tey olympique de Diourbel bu amee ndam waa Njaareem ñoo ko am président final bi fu ngeen ci toll parce que tey mooy jeudi benn fan moo dox ci diggante bi. waaw loolu moom dëgg la ñoo ngi wàcc final bi parce que lu mënul ñàkk la et objectif la woon aussi ren bi saison bi démarré dañu waxoon ni xale yi nañu jéem a xeex pour dem final et ils réussi mais j'avoue que ni ajurbel boo sport sax léeg-léeg da ngay ba bëgg bàyyi ndax autorité yi kenn du la jàppale bu yeesoo tey yi maire bi ñoo na cinq cent mille bu yeesoo loolu je crois amul beneen autorité fi, accompagne règle en dehors du gouverneur qui chaque fois, que nous déplaçons nous a donné essence quoi. mais oui vraiment gars ngay wax mais réellement bi quoi xaw ma lu tax. do, yaakaar naa du koy jooy sportif yëpp ñu koy jooy ndax politique sportive moo amul ci bi. waaw parce que une chance cadre nek si si si carrière yi xam dox sport nek ay Diourlois d'abord parce que tous les jeunes cadres que nous avons d'abord de dëkk région bi de de deux am ay objectifs ailleurs hein. il faut qu'on le reconnaisse hein. muy nek ay CEDEPS ak ay inspection de la jeunesse ils ont des jeux des par ailleurs hein qui n'ont rien à voir ak Diourbel et ce je crois loolu moo la gën a itteel ko ok euh, tey mi ngi noonu euh, léegi léegi euh, gis nañ ko say joueur ñi ngi ay entraîné ñi ngi entraîné bu baax a baax est-ce que mën nga ñëw ci sa état de forme joueur nii nga leen toogee di leen seetaan entraînement yaakaar nga ni incha allah samedi bu ñu demee dinañ am ndam ci kaw Asfa. loolu moom yaakaar nañ ko baax a baax moo tax noonu xeex d'ailleurs mais équipe bi gis nga équipe bi c'est plus une bande d'amis amul âge amul ñoom ñëpp presque benn la ñooy ànd ah ñëpp benn groupe la benn koñ lañ dëkk presque di ànd depuis que ñu commencé ànd ba léegi am na ay écart mais bëriwul trop loolu daal moo am si équipe bi et loolu mooy aussi tamit loo xam ni moo leen gën a téye yaakaar na ne ah ndam dinañ ko am si ASFA ASFA nag c'est bon depuis nu formé ba léegi ah mosuñu ko dóor ah. J'avoue que Rengi, allez, donne nous, de nous forfait, parce qu'on n'avait pas voulu jouer, parce que, compte des circonstances, les matchs doivent de, dérouler, nous avons jouer Et nous forfait, nous fait à Gurbel. Retour, nous sommes le Dakar, ils nous ont battus. Mais ça ne nous a pas empêché de nous qualifier. Et c'est la du Sénégal, hein. il faut reconnaître, hein. Aspa, c'est la meilleure du Sénégal, parce que les conditions, il n'y a aussi. ñoom dana am chance am nu budget bu doy am ay jël ay joueurs jël ay militaire c' est des joueurs c' est des yoo xam ne ay civil lañu la ñuy jël di leen fay di leen handballoo aspa loolu mooy force am ñoom liggéeyu defoon dara dañuy bàyyi joueur bu ko pare nu jël sa joueur bu baax ñëw di la fay def merci seen sport seen suuf ñu ngi leen di doxeel di leen gërëm di leen xamal ne daal yéen a ñu yéen a nekk quoi. yéen a bokk yéen a ñu jëm te yàlla na yàlla day gën a dàq quoi. le coach Armand Jai. Tay wax nañ ko léegi ñi ngi euh, fi nga xam moy stadium Ely Fall euh si leen Armand yéen euh, wa Olympique de Djourbel mu nek euh, équipe première division handball coach sur le plan technique laay ñëw ak yow depuis ngeen commencé entraîner ba tay d'abord c'est état joueur avant samedi ci finale bi ngeen wara jouer. Wa bon di nuyu ñëpp di len gërëm di len sant ak di len sant yéen ñi déplacement bi bon je pense que nak affaire bi.

dañoo jàngadoo handball ñu nekk ci jusqu'à présent li ñu doon wane moom la ñuy tegaat rek amuñu secret waaw. l'équipe est au complet. bon l'équipe est au complet amoon nañu ay euh, absence am nañu ay absence certes parce que y a des joueurs yoo xam ne si dañu feebar nekkuñu ci état mais toujours rek ñun préparé nañu ay xale yoo xam ne képp ku génn rek war la mën remplacer. nan ngeen di duggee ci match bi parce que euh, su ma juumul ASFA mosagu leen koo gagné waa ASFA moom ci histoire Sénégal moom rek la moo nekk équipe boo xam ci histoire handball Sénégal mosuñu ko gagné waaw moom mooy seule équipe boo xam au Sénégal Olympique de Diourbel mosu ko gagné donc cette année ci nag bon ñu ngi ci ñu ngi xool sur le plan technique ou tactique nan la ñuy def pour battre équipe bu bi parce que équipe le boo xam il a tous les moyens xam nga il a des joueurs yoo xam ne si euh, bien nourri xam nga il s'entraîne matin soir. Euh, par rapport ak jour yi nga xam ne si ngoon ba ngoon nañu ñëw teere kon duñ mbokk mais nag affaire course la aussi ku nekk yaa say bagage yoo xam ne si peut-être yaa ngi ko denc dañuy xaar ba bés ba ñu jëm ko wane. xaar ba samedi ngeen jëm ko wane Arma yàggatul ah samedi yàggatul dara euh, ñuy ñaan yàlla ndam euh, bu baax a baax Arma seen sport si seen zoom nan nga ko gisee. waaw seen sport seen si seen zoom moom vraiment dañ koy rafetlu parce que lii lu yàggoon na war a am la à

Amadou Traoré mom moy capitaine olympique de Djourbel équipe première division bu handball Amadou seen zoom nuyu nañ la. wa ñu ngi leen di fay bu baax baax di kontaan si yéen. Amadou ñu ngi leen fekk tay entraînement depuis une semaine yéen ngi regroupement nan ngeen di waajee final bi fi toll ni ak say joueurs sen état d'esprit fan la toll. wa instant bi mom eh, affaire esprit mom mëna né ne xalaatatuñ ko sax ndax euh, euh, yaakaar naa ne joueurs yi moom instant bi joueurs mu ne mature nga daal da pare nañu yaakaar naa ku nekk D1. cinq ans ñu ngi xaw ma cinq ans wala ans ñu ngi si en Ligue yaakaar naa ne problème d'esprit moom gars yi dépassé nañ ko. Amadou Asfa ngeen dajal samedi incha allah si finalu championnat bi mais Asfa Amadou mosu leen koo gagné. <laughs> waaw loolu moom dëgg la mais yaakaar naa ne daal bii daal bu soobee yàlla pare nañu pare goo xamante ni moom ah. si li ma foog bokk. Mhm. ak tamit tax mooy moom da ngay sabablu te ñu ngi ñaan moom bii passé moom dina wut ak yeneen i daal. Mhm. waaw say amul kenn ku si nekk infirmerie ñëpp macha allah. waaw am am nañu benn blessure daal am nañu koo xamante ni moom dafa tawat daal mën naa naa xam naa pali bi moo ko jàpp. moo ko jàpp kon kooku est ce que dina mën a jouer samedi. non <laughs> waaw yaakaar naa dina jouer ndax ñoo na entraînement mais ku dirigeant yeeg coach yi ñoom ñoo ne ko na toog pour waajal samedi. waaw ñu ngi waaj bu baax a baax a baax a baax waaw instant bi moom daal xel dal na daal di ñaan uh, autorité Diourbel yi waaw ñu ñëw jàpp si tey demoon nañu si monsieur le maire recevoir nañu oh, defal nañu acte boo xamante ne vraiment kontaan nañ si bu baax a baax a baax ñuy ñaan yeneen autorités yi tamit ñu jéem a def ni moom daal ndax final bi des na du benn daal. Mm-hmm. ndax tey la des na suba na gars yi ñëw jàpp si bu baax a ayca seen zoom jaajal na jaajëfal na la à travers seen sport muy euh, émission boo xam ne day traité de toute l'actualité sportive fii ci diwaanu Ndiarème. jaajëf ñu leen di rafetlu bu baax a baax kontaan nañ si yéen tamit waaw jaa ngeen jëf. merci Kër. ok voilà chers téléspectateurs jërëjëf euh, gis ngeen ko noonu tey ñi woon fii euh, ci stadium Ely faal Fall comme ni ngeen ko gisee wa Olympique de Diourbel ñoom ñoo fi préparé li nga xam ne mooy seen final championnat bi ñu war a joué ci Dakar samedi incha allah ak ASFA leen di ñaanal yàlla ndam bu baax a baax ndax bés buñ ko amee ndam njaareem moo am ndam ndax ay doomu njaareem lañ ñoom donc ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen numéro Sen Sport fii ci seen Zoom jërë ngeen jëf. fire. Give me reason, take me higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Singing forever young, singing every beat got some Let's rejoice in the beautiful game And together at the end of the day We all say when I get older I will be stronger They'll call me freedom Just like